terminer sa belle saison de lutte avec frappe mbokki Sénégal Ibulaay production doomu Parcelles Assainies bi ndaanaan bi xale bi nga xam ne bu tëggee rek ñu xam ne tëgg na moo ñu woo ci arène nationale le samedi 6 juillet 2024 combat choc combat derby combat jàmbaar xale bi nga xamante ne ni lamb da koo namoon lool muy kan ñu ni Pape Mbaye numéro 2 bu Géejawaay du xam ngeen ko xale bi nga xamante ne ni dafa marqué ay empreinte am ci lamb moom la ñu jël nag daal di koy booleeg Dame Sène bu Parcelles jàmbaar ji champion bi ndaanaan production du yem foofu de combat spécial bi drapeau le grand champion la Boy Kaïré Papaye Diène Diouf Kaïré kenn ku ne koy bëri ñu ne le phénomène de l'arène Laurent Ndiago mel ni mi moo fa war a jàkkaarloo ak sekk ndaanan mi saf xorom loolu te mën a bëri waaye ci bés boobu mbokk yi déglu leen sëy jàmbaar dina fa jàkkaarloo ak armée jéey joona bi dina fa jàkkaarloo ak armée bu ndewraan sentel junior jàkkaarloo fa ak petit zé mbay défoncé numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak zé bay fall booy njaay njaay jàkkaarloo fa ak zënd bu ndaw petit laay dina fa jàkkaarloo ak caatu souleyman jaw sonra jàkkaarloo mbokk yi ak Modou Lo lis bu ndaw jàkkaarloo fa ak fils de Aldo sponsor yi nga xamante ne ni mbokk yi ñoom ñoo gunge Ibulaay production ci bésam boobu bokk na ci Jador ETDR Harmonia Jambar News Xelcom automobile ci bés boobu nag mbokk yi Ibulaay production nee na invité d'honneur bi du kenn ku dul Modou Xarañ Lo le roi des arènes ci le samedi 6 juillet ci arène nationale ñu ànd ci ak Ibulaay production

waaye maa ngi lay siyaar ah, waa Difoncé ñëpp a ngi fi gain waaw dafa leer waaw mu sant yàlla jul si yonte bi maa ngi sant sama ñaari waajur di yërëm sama papa bu baax a baax di sant sama yaay di sant suñu waa kër bu baax a baax a baax baax sant suñu waa kër waa géej waay ñëpp di sant Mbaye Difoncé sama papa sant Mour Baye Fall sama nit sama sama sama promoteur sama lépp man may man Mour Baye Fall mu tëgal combat Ibulaay tëgal ma combat de Mour Baye Fall mu tëgal combat maa ngi sant waa waaw weñ gi maa sant di nuyu sama gaañ ma àndal Massar maa ngi nuyu waa Gunaas waa Baxdaat Jé Bafal xam naa ko nii rek xamul làmb rek non man non man comprendre may diise non Zé diisul ci man làmb du diis man man wéruma quoi du man damaa dof ay diis yi Andreas moo ëpp doole diis endurance moo doole lépp a ah, ku daal na nga xam sa bopp man du ma yàggal kenn amateur du ma koy yàggal vite fait rek g bi dama koy duma dama koy daan ba mboolee ñëw fekk fi yàlli de billaay wallaay doo dem fii dama lay duma dama lay daan g ki la daan maa nga daan g xam nga fi nga dugg sax doomu Baxdaad bi nga dugg doomu Gunaas doomu Massa Ndiarème man jembere laa def man jembere sama kër tànt jembere sama koñu tànt la jé sax dun ma romb la loolu nag loolu jé wax bu yàqu la rek loolu lay def loolu lay def ñi ngay wax nii laa wax naan ay sama tàntaay yooyu noonu loolu du làmb ji. waaw bu fa amee kër du ma fa ñëw waaw jeex na loolu loolu. yàlla na yàlla yóbbu ak ma daan la dama lay duma dama lay daan. doo pousse doo passé. bañ yegg si domaine boobu foofu yàgguñ fa. Eh, fi ma nekk la. foofu noonu laa la yàgguñ fa. si loxoy Balla Gaye 2 laa nekk G barke sëñ Bamba. Eh, eh, bësoo soo ma jeexal leen daw sama yaram nga am ay Balla Gaye 2 ak kii man yow dafa daw sama yaram. doo hmm. nekk si Zakizan wala Jadli nga am ay Balla Gaye 2. am may yow Zakizan ak Jadli dama xaj sa kaw. nga am Zakizan ak Jadli man sa loxo un siga laa nekk. un siga moo tax nga nekk si loxoy bon si loxoy bon nga nekk. ba bis ba incha allahu rabi loxoy bon loxoy tilim nga nekk man loxoy waa défoncé laa nekk. waaw nice man maa ngi post jaara jaaxal pees yi. waxoo waa divorcé yow da ngay jaay pees. man kër bu li jëm dama man lépp laay nga yóbbu ko di yàpp nga naan jaay lépp laay liggéey. man xoolal jaay pees waaw nag yaay bëgg rek. Zé da ngaa neex rek nga naan jaay pees sàcc laa dul def. jaayoo pees lépp laay jox. defoo dara jaay ma pees. mais samay mbokk ñoo ma ne xaaral ma may dundal man waaw mais bu mu bëggoo jaay pees yi. lépp ma jaay pees li ngay dund si pees loolu laa siy dundee. géejewaay géejewaay jàmm miin naa leen. waaw duggoon nga fa dugg naa fa duggati fa. Modou Feugueleu la. waaw daan rek dugg naa fa duggati fa. non Modou la daan. dugg naa fa duggati fa laa wax ñetti yoon laa fa dugg. kii daa réer mbir rek. barki mooy. réer mbir lu mu tekki. bàyyi pajak bi ngay mbir lan lay tekki. non non bàyyi ko mu waxal boppam moom. bu ko réer mbir mooy lan saxuma nit waxal ma nga naan baa baa may wax yow laa la laaj mooy lan wala muuma la bu bis baa nga comprendre da ngaa réer mbir ma tànn du boobu bi ma tànn gën a nooy nag waaw baax na ba bilaay ki ma daan bii paase moo la gën a ës yow pajak pajak nga bëri ak pajak pajak Serigne Bamba alxuraan pambar bi ma moo gën a ës fuuf moo gën a ës laa wax Ah, baax na dama xeex mu liggéey doyul. man xeex ma sama rek rek. boo liggéeyal jël bi gën a gaaw rek day gën a métti. waaw ah, gën a gaaw rek barki yàlla boo liggéeyal moom. boobaa bañ yegg si billaay wallaay see day gën a gaaw. bañ yegg si barki boo liggéeyal moom vite fait lay doon ay seconde laa lay daan sama gëm-gëm la force la. arène nationale maa ko fa condamné damay ñëw rek tijji jël maa ko fa condamné nga naan ma ay maa ko fa condamné barki Serigne Saliou maa ko fa condamné sama caabi laa yor dama ñëw tijji jël moom moom dem da nga fa fekk caabi boo ko dugalee du jéew ma daj ko daj yow doo daj barki Serigne Sall dama dama koy daj jël moom moom demaat géej waay bis xool nga kidnappé dama lay kidnappé par force xool nga ma ba kidnappé ma yow nga woon lamb si côté bu nekk mais mënoo maa xam hmm. fa laa lamb billaahi lamb nga si côté bu nekk mais fan laa la lamb yow non man du ma si détail fan laa la lamb da ngay wax am sens nga wax li ngay wax moo gën yow dama wax loo moo ko leer da ngay wax mu leer

loolu ngay ba a dégg da ngay dégg tous nga naan ma lan mu ne duma daan la yow ay foog nga ma teppee ko bal fële topal fële laa wax mu duma daan la yow mais eh, tous nga naan Saalum Saalum yi jaaxal ngoo kenn du ñëw ñu ngi woo nii kenn hmm. maa lay woo nga wuyu si ma waa Njaago Baar ada jàmm gën waa gétt ga guy ga waa guy ga maa leen woo bu baax waa marché bu ndaw waa are Fass ñëpp maa leen woo di waa Fora di woo waa jàmm gën waa Ruxu Jembare di woo sama gaañ ma àndal ndàgg moo ma gunge waa ñoom kaldu Papa laay pata yesere ñëpp maa leen woo si làmb ñu jàpp si ñoom taala ñoom laay njaay ñëpp maa leen woo si làmb ñoom umral borom foora ñëpp maa leen woo si làmb ji jàpp si bu baax di woo waa Jembere sama gaa yi may àndal ñoom taxaw jeune transitaire duudu am demba aarma luum gumba njaay taal sama mag Issa Diouf caaru xay waa Morona ñëpp maa leen woo ñu jàpp si combat bu baax xarit Diop Morola sama dëkk la nga xam ne ay Morola da nga am dara tuddal Morola benn dëkk Morola tuddal ma benn dëkk tuddal Morola Morola benn dëkk eh, sama koy séréer waaw tuddal ma ma dëkk xay daaga koron ci la mooy loolu la nekk morola li nga wax nekkul morola de li nga wax nekkul morola de li nga wax nekkul morola waaw baax na waaye bëri nga tal loxo rek lundi lundi lundi am na signature waaw mais ma woote lundi nga woote di wax waa jembere jembere ña Ousmane mu ndaw li la si am ne lii lii la si am ah? waaw parce que di wax mbay mu ndaw plateau maa fay toog Kanté Italie Lamine mi ne ma plateau maa fay toog waaw ma fi yaa tepp gi di ngeen ngaa caatu Jolof ma fi yaa am meuse ay ngaaw bu leen dof yi mooy loolu yaa mu maa ngi woo waa Baxdaat maa ngi waa Baxdaat Gunaas marché Njaareem marché bu bees lew na maa ngi woo kuy képp kuy liggéey si weñ rek maa ngi lay woo waa Difoncé seen mbërëg li sa limaamu waa moto waa weñ gi moto maa ngi woo ñëpp di ko teg si loxoy rek Aliou Baba sama doom nday ak ak benn Mor Seret Baba ak Mor Seret samay doom nday lan waaw danoo génn boobu léegi kenn gisu leen waaw maa ngi ñaan nag ñu ah. jàppale ñu si bu baax a baax a baax ñu jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax a baax di woo Mbaye Difoncé sama papa Modou Baye Fall maa nga fa am ñaari bolok nga may jëndal Mbaye Difoncé ñaari bolok Pa Mbaye Pa Mbaye mi bëri gannaaw combat bi daf may jëndal benn bolok loolu force la waaw loolu force la daf ma koy jëndal alaaj naar maa ngi lay woo si combat bi alaaj naar si loxo alaaj naar laal nekk léegi alaaj naar bu sita alaaj naar mbay difoncé day jënd loolu yootul ko mbay difoncé ay lomfoor ay tafacam ay dóor jib mbote numéro un waaw Modou Baye Fall Modou Baye Fall damay jëndal ñaari bolok loolu force la maa nga fa am maa nga fa am force waa gunaas baax daal di san sama yaay bu baax a baax di san sama jabaru mag bi Madiga borom ndekki yi maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax dama lay duma dama lay daan